Bienvenue sur Salam Vision. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokku internaute mbokku internaute yi nga xamante ni yéen a baaxoo di suivre suñu activité ñi ngi amaat mbégte tey ñëwaat fii tey seet sunu jigéen sunu xarit macha allah ñu gën ko xam ci soxna Mariama si mu sëriñ Babacar moom itam wax dëgg yàlla doon ku yàlla baaxal doon ku yàlla may doon itam koo xamante ni wax dëgg yàlla li nga xam ne suñu borom jagleel na ko ko gannaaw bi mu ko doonnee tamit gëstu ji di jàng dëgg yàlla mu doon ci koo xamante ni ku tabe la bëri ma yërmande ñu am luñ ci xam waaye tey ñu bëgg gën a fësal li nga xamante ni wax dëgg yàlla ñu ngi koy liggéey rawatina li muy jëflanteeg askanu Sénégal góor ak jigéen mag ndaw rawatina suñu mbokku internet yi nga xamante ni ñoo nekk partout à travers euh, la diaspora soxna Mariama Sy mu Sëriñ Babacar ñu ngi leen nuyu di la ziar waaye di la dalalaat jotaayu xam-xam bii salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu ñu ngi nuyu mhm. nga xamante dañuy bàyyi xel bu ñu teew. Mhm. saay su dañuy bàyyi xel am ci ñun coppeel am ci ñun njëg-njëg. Mhm. ñu yàgg ñoom lool lool lool. rawatina ñi nga xam ne ñu ngi ci diaspora bi. comme ni partout dans le monde. ku waay nekk ñuy fekk di lay nuyu di lay ziar may nuyu kulli këru diine goo xam ne yaa ngi fi. ci àddina. boo mhm. jël képp rawatina fi nga xam ne fa lañ jox. Mhm. fi nga xam ne fa lañu joxe suñu jébbal muy Tiwaawan. ñu mhm. nuyu suñu xalifa général. sëñ Mbaye Sy. Mansour Mansour. koy ñaan yal na yàlla yokk leeram te taas ñu si barkeem. allahumma amiin waaw ñaanal waa kër maam borom Touba. ñaanal yàlla yokk seen leer. yàggal seen taxawaay. sëñ Mountakha maa ngi koy ñaanal Bassirou Mbacke Mbacke Balla Aïssa mhm. yal na yàlla yokk leeram yàlla yàggal ko fi mhm. dama am ci moom cofeel bëgg ko lool ndeysaan bëgg lu jar a bëgg gisee day gën a yokk ci moom tartaala taal waaw ndax sëñ Saliou mhm. lu gént lu bëree bëri wallaahi dama koy gis ci gént lu waaw may am ci moom cofeel bu wérale waaw di nuyu kul ni koo xamante yaa ngi ci kër gi ne moo xam ñaseen laayeen di nuyu këru diine yëpp. ku joxe suñu nuyoo. Mhm. te àll maa ngi lay nuyu di lay ziar. Mhm. di lay jox sa yéeguwaay. di lay ñaanal fois dañ koy fesal. lu lay ñaanal jàmm ak sutura. na ko doon loo xamante lu yàgg lool xawaas yaa nee naa lu yàgg lu nekk dëgg la. Mm-hmm, mm-hmm. ndax nee mm-hmm. yokk sa taxawaay. yàlla tey ñu may waxee sama xol neexul. waaw ndax dafa am sama mbokk moo xamante ne. ñoo bokk li nga xamante ne moom la ñuy liggéey. Mhm. wàññeeku tout récemment lu yàggul. ajal dara booy. maa ngi koy masawu ba maay masawu ay mbokkam bu baax a baax. di koy ñaanal yàlla yërëm ko. yàlla xaaree ko àjjana. di ñaan yal na ko yàlla jéggal yal na suuf ayof doonoon nit ku baax. Mhm. nit ku am yërmande. nit ku fonk waajur. Mhm. ndax bokkoon nañu fi ñuy liggéeyee. dara booy suñu liggéeyee ba benn ay ndagg li muy def dem envoyé yaayam. xaalis bu fekkee ci nag mën cee seede lu bari bari bari taal ndax bu ala kuli aali dañ koy fekk dañoo na yéex te buñ ko fekkee lépp muñ ko waxal te def ko yëpp dañ ko fekk te dañ ko laya moom mhm. waaye ñu mën nañoo seede ci moom mhm. yenn ci ko ci moom mhm. ah, ndax taal wax dëgg man dawa du sama nawle sama xarit la ndax bokk nañ dañuy def à chaque fois day dagg yitteem ñëw sama kër yendul ma ñu ñëwee toog ba guddi waxtaan kaf ree mhm. ndax kaf ak ree rek lañ ko xamee ak jàmm waaw ndax mu doon nit ku jàmm bëggul gis nit ku am lu la naqari. Mm-hmm. bëggul gis nit ki itam koo xam ne xolam du neex. soo la gisee sax day jéem a naqari ak yow. Mm-hmm. waaw bu mu ñëw ñëw sama kër même su ma xaatee ndeysaan day toog xaar ma. te pourtant moo ma gën a ñàkk jot. Mm-hmm. nit ñi dañ ko bëgg di koy bëgg di koy wër. wallaay waaye à chaque fois rek xëy na pression liggéey dina ko jàpp ndax ñun yàlla def ci <laughs> di mastaw ay famille keroog ñun ñëpp fa nekkoon di koy jaale a maa jooju. te di leen di mastaw bu indi koo xamante ne nag yaa ngi ci àddina war nga këpp rawatina suñuy client ak suñuy cliente yi nga xamante ne mhm. tay su ne dañuy teewul taala mhm. mhm. ko soxnaam ma ci mën moo ñu ko ma audio taala ma toog lu yàgg déglu ko ndax fi mu nii jamono ji dafa toj te problème yi dafa bari moo tax maa ngi nañu patienté donc hmm. kenn yàkkamti incha allahu rabbi képp koo xam ne jot naa sa message bi naa la tontu. Hmm. maa ngi jégalu ci loolu bu baax a baax. di nuyu ñëpp di ziar ñëpp di si mu Serigne Babacar macha allah ci nuyoo bu am solo boobu waaye itam wax dëgg yàlla euh, jaalewaat la yow tam bu baax a baax ndax da ngaa baax rek di ko jaalewaate waaye yow tamit euh, dañ la ko war a jaal ndax wax dëgg yàlla euh, so ajaratu soxna Daba booy mu Serigne Falilou. suñu xarit suñu jigéen suñu soppe suñu am di jàmm mu seqoon ak moom lu ne bokkoon ak moom lu ne bokkoon ak moom bërëbu liggéeyukaay waaye boo xoolee couleur gi ñu yàlla boole après mooy en dehors liggéeyukaay bi li nga xam ne seqoon nañ ko te loolu yëfu nit la yëfu doomu aadama la yëfu jullit la yëfu taalibeem moroomu taalibeem la kon moom it noo ngi koy ñaanal ci daraja yonti yàlla Muhammad alayhi salaatu wasalaam barkeb yaakaar waaye barkeb Cheikh Mamadou Fadal mbàkki sëriñam ba sama borom suufu Tuubaa ko yox ca kanamu kawam lool koy ñaanal sama borom teeru ko te tabal ko ci àddina la gën a kawe ndax am nañ ci yaakaar ndax keroog la ko gunge ci ay doomu aadama àdduna yëpp bokk jooyandoo ko kon kookee am na cër boo xam ne suñu boroom joxoon na ko ko kon noo ñaan yàlla bu ko cat jiitu ci bàmmeelam waaye soxna Mariama mu mel ni sax mu toll nii euh, internet yi ñoom ñi ngi yàkkamte bokk si ci biir live bi fi mu toll nii ndax am na ñu commencé demander invitation waaye nañ bañ a yàkkamti nañ la bàyyi nga waxtaan ak ñoom wax leen tollu tolluwaayu réew mi wax leen jamono fi mu toll naka lañ mën a def ba mucc ak lépp suñu paree ñu woo la ci sa numéro téléphone lu ñu bëgg a xam lu ñu bëgg a jokkoo ak yow bu ñu ko jokkoo ak yow foofu incha allah rabi dinañ ko fa am numéro téléphone bi ñu la mën a jotee itam bu ñu paree mooy 77 060 43 10 incha allah rabi bu ñu ci wootee ci whatsapp bi wala bu dee mbokk bitim réew la wala ñu ne ci biir réew mi tam incha allah rabi la dinañ la mën a jot mais soxna Mariama fi may tàmbalee fi mooy réew mi ci jamono bi ñu toll xew-xew yu bëri lool dégg yi bëri lool ba bi ci gën a yéeme gën a yéeme lool fi mu ne soxna Mariama mooy bërki démb woo jaay seex bi nga xamante ne moom lañu faat fii nga xamante ne mooy ci séddu xotaan soxna Mariama ban yëg nga ci am ban gis-gis nga ci am ak fi jamono tollu tey est-ce que yëf fi mu toll nii eh, nit ñaa ngi demee seen sago bopp fi mu toll nii maataala xale boobu ndeysaan nee naa ko jur doo yërëm ñu ngi masaw yaayam bu baax a baax dafa nekk mhm. jur doom rek dafa nekk surtout nga jur doom am ci moom yaakaar mhm. xale boobu ndeysaan xëy na bu fi yaay bu fi nekkoon kenn mhm. xamul lu ñu doon ëllëg ñu ray ko ñu ko na mu xamul taala wallaahi na ay doom te itam taala moom jotewul a xale bi xale bi moo yàlla suñu borom la xale ku ko toroxal yàlla toroxal la waaw te itam ji yi fi xew balaa yi taal jeexagul day gën a yokk day gën a yor ndax sarax yi ñu war a def ay sacrifice yu ñu war a def taal hmm. defuñu ko dëkk bi na magistral yi nga a dem ci kilifa diine yi ñoo ko yan sacrifice la war a def hmm. ñu def ko ndax dëkk bi war a sang hmm. ndax maam Cheikh Ahmed Tidiane Sy waxoon ko maam Cheikh Tidiane Sy almartoom nee na nañ sang réew dëkk bi ñu koy sangee direct taal yow léegi rey yi dafa bari léegi bari taal sa yaram day daw sax ndax yi ngay dégg ak yi ngay gis léegi wax fa ne yàlla mosu fi am de façon de lii mosu fee am. mais léegi léegi dafa takk avancé. kon nag Macky Sall ci boppam bu mu xeeb sëriñ si. ndax réew mi ba yegg fii. Mm-hmm. sëriñ si am na lu ñu fi def ndax saa yu ñu xëyee dañuy wërd saa yu ñu xëyee dañuy dañuy dóor suñuy jawaatu kamaa yu dëgër. Mm-hmm. di laajim suba laajim ngoon te loolu la téye dëkk bi. moo tax loolu jarul xeeb jarul xeeb Macky Sall ci boppam. Mm-hmm. defaraat toogaayam. na defaraat toogaay ndax am na fi benn part de responsable ndax dëkk bi li koy booyee yëpp yëpp moom moo war a dem gëstu xool ndax dëkk bi fi taal dafa am ay sart yu fi war yi hmm. xaajagul baadu hmm? xam ne ay deret kase laa gis allahu akbar ay deret kase te deret yëpp rayante mer gaaw a mer fët fët ak élection yi ni nit ñi di ndaw yi hmm, ni ñuy téye xale yu ndaw yi lu ko dalee fukki at jàpp juróom-ñaari at. jàpp hmm. ñetti at. jàpp hmm. benn at dañ leen téye. Hmm. seen njaboot ay diir sax dañ leen di sax dañ leen sacrifice. moo tax ku ci am sa doom nga la na nga ko téye na nga ko téye balay ndox di laal suuf taal. léegi dina ne nga tuddee maan nañ def attention. soxna Mariama li ngay wax doy na waat. nañ def attention te nañu génnee sarataal. ku nekk boo mënee génnee ñetti kilo dugub borom kër gu ne nga génne ko yow sa njaboot nga génne ko def ko sarax. ñetti kilo dugub yàlla dina leen musal muccal leen. Mhm. yàlla dina leen musal. muccal leen accident yi dina bari lool taal. Mhm. nawet ji dina tàng. dina tàng nawet dina dina dina am bari ay meññeent. Mhm. dugub dina bari ndox dina bari mais léegi dina bari. moo tax dañuy def attention te nañuy bàyyi xel mm-hmm. li ñuy wax dëgguñu mm-hmm. tëb di koy wax loo ak ñu na bàyyi xel bu baax a baax ci yooyu mm-hmm. waaw ñu ci bàyyi xel te nañ génne sarax boobu ma ne waxtaane dégg nga allah am na solo loolu soxna Mariama Sène sëñ Babacar kon nag euh, mbokk internet yi yéen a ko bokk déggandoo ñetti kilo ko borom kër bu génnee génnee waale ko ak ah, te ñaan yàlla muccal ko ci xew-xew yi nga xamante ni wax dëgg yàlla dina dina dina xew mu ngi xew fii ni ci biir réew mi waaye tam mu mel ni fi ne soxna Mariama bu ñu di ci xew-xew bi nga xam ne am na bëgg dem ñu gis tamit tudd ko léegi wàllu élection wàllum démb ñu gis waa Yewwi Askan Wi marche bu rëy bi ñu doon def marche bu rëy bi ñu doon def ñu gis tamit wax dëgg yàlla gis nañ ni wax dëgg yàlla bëriwaat na tey jii jafe-jafe yi fi am ndax ñu ngi naan fukki doomu aadama ak benn yoo xam ne euh, gaañu nañ ci waaye ñu gis yi tamit ñetti doomu aadama yoo xam ne ñàkk nañ ci seen bakkan est-ce que loolu tam bu ñu xool day bokk ci sacrifice yi wala tamit dafa bokk ci fi ni euh, dëgg bokk ci sacrifice yi la bokk ndax hmm. hmm? la moo tax hmm. diw bu mu fal diw bu ma jiitu bu ma raw élection yi passé nee naa takkal naa si woon na dafa xamante ay wax nañ ci wax yu bëree bëri bëri yoo xamante ne yàlla dogal na mu am. Hmm. ndax ñun daal amuñu jot toog ci réseaux sociaux yi di waxantoo. Hmm. ndax suñu liggéey bëri hmm. yi di ñëw deret gu bëri dina tuuru taal ndax ñëpp ci ci boppam. nañ koy bàyyi xel. Sonko ginnaaw dafa tàng jël taal nañ koy bàyyi xel. à chaque fois ndaxte Sonko dafa am lu mu àndal. am lu mu àndal yàlla def moom Macky Sall bu mu ko njat na ko bàyyi mu def li bëgg a def te mm-hmm. teewu bu mu jalgati moom itam nga xam fu muy teg tànkam rek mm-hmm. ndax nee fii Sénégal dëkk démocratie la mm-hmm. ñun ñëpp benn lañu c'est la Sénégal kon fii ñu ñooy ñooy añandoo ñooy reerandoo ñooy ndékkeendoo na ko bàyyi mu def li mu def Sonko xam bu baax fu muy teg tànkam ndax dee yi taal dañ ko soxlawul yow tamit nag deena deena deena deena lu ko ay dañ ko dañ dañ ko sànni dañ ko def nangam pour lan taal nit ñi boo xam ne lu dul dee yi Mm-hmm. ndax ceeb bi seer na mm-hmm. diwlin bi seer na mm-hmm. courant bi seer na ndox mi seer na suukar si seer na taal te loolu moo ëpp révélation ñu nekk fi di diggante ay diw dee na diw dee na diw dee na diw dee na bañ ñu dee mais dee na jóge ci sa kaw yàlla suñu borom bi subhaanahu wa taala al yàlla moo war a rey mais léegi bu ñu toogee ba bëgg a toog place yàlla c'est trop c'est trop c'est trop c'est trop moo tax Sénégal faaw ñu indi fi peine de mort loolu rek mooy tax solution yi daal di daal Sénégal mën a am solution daal moo tax nañuy bàyyi loolu daal daal daal la mu doon lu am solo kon wax nga ko peine de mort moom mënul ñàkk ci réew mi man it bokk naa ci ñi nga xam ne d' nañ ci parce que tam dégg moom fi ne dafa mel ni fi mu toll nii daanaka euh, mosum ndox la ci mbedd fi mu toll loolu moom lu mën a ñàkk la mais tey wax nga ko léegi nii la laajee ne la tey li nga xam ne mooy politiciens yi ñu xool Sonko ak waa Yewwi Askan Wi ñu àndal ñëpp ñu ngi rey seen bopp ci pour dem assemblée di waajal fi ne li nga xam ne mooy élection présidentielle élection présidentielle est-ce que tey jii ci listixaar yi ngay def wala boo tëddee guddi yi nga xam ne yéen a ngi koy jëfandikoo pour xool xew-xew yi war a xew ëllëg ak gannaaw ëllëg est-ce que gis nga ne tey jii fi mu ne Macky Sall mën am troisième mandat. su naa ne seetkat yu bari am hmm. man soxna Mariama rek am deuxième mandat. Hmm. mais troisième mandat <laughs> taala yomb du ko am. mais ay kayit administration man daf mel ni wàllu kayit moom may na ko yoon pour mu demander troisième mandat. dina ko demander mais bu demee day tàcc. moo tax Macky Sall mu bañoon dem troisième mandat moo gën gàcce gu gàtt. Mm-hmm. moo gën di gudd. Mm-hmm. Mm-hmm. du am troisième mandat man naa toog fi wax ku ko sañee wet na toog jàkkaarloo ma ne waxoo dëgg. ah dé deuxième ne yaa ko na yàlla suñu borom président bu bees dañu am fitil président. bu bees mooy am fii Sénégal ñoo dina jóg fuñ ko foogee waaye incha allah rabbi sañ nañoo cité tur. mais kooku ñu koy togg ñoragul. mu ngi koy togg ñoro ko mais incha allah président bu bees mu ngi ñëw am Sénégal dama naa la ko wax. Macky Sall troisième mandat. man maa ko wax. de xanaa leer na moom ndax bi bi bi ñu tollee ci ci ci ci deux mille deux mille dix sept itam yaa toogoon fi ne daal ne day jël day amaat deuxième mandat. kon tey boo toogee tëb tëb wax du ma tëb tëb wax ndax du ma inventaire. du ma bëgg bës it ba wax loo xamante ne amul moo tax ñuy wax ñëpp naan Macky daan troisième mandat bës dañu war. mais bu ñu bës teg ko fulaar waaye deux mille vingt quatre nga naan carte gi dañ ko tourné pour bi amul luñ fi tourné nit xoolal ba gis mu doon lu amati solo wax dëgg yàlla ci wàllu woowu fi mu toll nii soxna Mariama wàllu wàllu li nga xamante ni mooy wàllu seet ba tey fi mu ne ci ci ci xeeti seet yi yokku na wala wàññiku na wala parce fi ne da nga jékki woon tëj mel ni ku dugg xalwa ak yu mel noonu fi ne ba ñëpp naan am na soxna Mariama mu sëñ Babacar tam loolu tam lu ko waral waa taal dañuy sant yàlla di julli si Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam ndax am na yoo xam ne bu ñu ko dee def àndul ngay toog di seet mhm. ànd bi nga toog foo nekk ngay seet mhm. ndax ñun suñu seet seet spécial la mhm. dañuy xool ci wàllu ram yi di seet bi cabax boo ko seetu bambara la taal dañuy façon seet yi bari na moo du soo ñu woowee dañuy xool lan moo gën a méngoo ak sa seet ñu seetal la mais de temps en temps taal la ñuy faral di seet ndax xam nga lu tax taal nit mën koo ñaanal ajoom ah, faju moo nga toog di seet di perte temps nga nar a perte temps nga du tëju si daal di seet man su baree liggéey taal wax dëgg aw ma jot toog di def ay émission mhm. bu liggéey bi baree ba takkar naa si mais benn instant day laaj ñi nga xamante dañ bëgg ak dañ lay saw mhm. mhm. ak di déglu say émission di ci am njariñ benn instant day fi nga génn wax ak ñoom daal di duggaat <laughs> dafay jar <laughs> macha allah ñu sant yàlla rek am na ci solo euh, ñu ngi gis sa sa sa sa sa sa ci ci ci faatu soxna Daba Boy bi ñu dégg Ndella Madior Diouf mu génn def ay vidéo def réplique ne ne ne ne ne ne ne ne ne Daba Boy euh, maanaam faatuwul faatu bu naturel dañ ko rey yow noo déggee loolu. loolu lu mën a nekk la ndax li tax daala. Mhm. ñun doon nañ liggéeyandoo daba booy mais xamee muñ ko benn feebar moo tax deewam bi dafa gaaw. Mhm. yàlla mooy rey mais deewam bi dafa gaaw teel taala. Mhm. ndax ñun xamee daba booy jébet. Ah, xamee ko benn feebar. wax dëgg daan na jàmbat instant sama nopp bi day riir ma dama mm-hmm. sonn bu sonnee mm-hmm. tëdd naan ay dafa am jebe mm-hmm. yi itam ba pare ndax nit ñi léegi dañuy sooxaale ak feebar surtout te xëy na duñ ko ah, a nekk la moom dafa jàng santé ndax am Safir FM Safir santé la woon après mu ñëw ubbi Safir euh, Touba TV ci rajo Touba FM kon moom boo xeeloo rek xëy na am na fu mu ko teg mhm. moo mu mënuñu cee sori mhm. mënuñu cee sori taala mais daal daba booy nañ ko ñaanal yàlla yërëm ko yàlla xaare ko àjjana mu reposer à paix loolu lañ koy ñaanal ndax wax dëgg fa ne yàlla deful nit lu tax ñu koy sonal. wala ñu koy sonal ci bàmmeelam. moom xàppi rek la doon dund ndeysaan no stress. wala ndeysaan tëdd ci salaam ñu mhm. allah ñu gis ne tam sa dëkk ba Tivaouane sa dëkk maam Serigne Babacar Sy bi moom it fan yi xew-xew ba fa am laal fa lu mat fukki xale ak benn ba ki démb woon njaay ñu déggaat ne tamit lu mel noonu xewaat na fa waaye bii dañ cee dañ cee teel a jóg ba fay lakk googu loolu tam naturel na wala tamit ban gis-gis ngeen ci am yéen ñi nga xamante ni tam wax dëgg yàlla ay surtout seen baaba ngeen bokk tam Tiwaawan euh, mu euh, ci kaw wala la wala balaa la wala nu hmm. ah, hmm. hmm. am na jinne saytaane yoo xamante ne foofu du yàq. moo tax ñoom nañu def foofu sarax. dañ ko wàccee kaani ñu togg fa ay laax génne ko def ko sarax mhm. ndax am na lu laxasu si biir loo mhm. xamante ne moom moo fee ni standard boobu te buñ ci jógul mhm. dina amaat yu gën a garaaw moo tax nañ ay sarax daal dégg nga danañ fa wàcce kaamil incha allah rabbi jàng fa ay yaasin yu baree bari ñaan fa yàlla yàlla def fa jàmm waaw buñ ko defee rek incha allah yàlla dina ko wutal jàmm léegi bu neexee yàlla am na solo dund bu cher gi ci waaw xanaa metti métti ndax man dund bu seer mën naa koo bañ a ndax am naa ay taalibe yoo xam ne daal taal daanaka lépp ñoo koy def te sama sëriñ itam mhm. ñemee na dépasse ma xorom doon yu ma njël mais daal dama am ginnaaw am ñoom dañ may gis seen soxla mhm. am ñoo xam ne mhm. te su méttiwul ci yow xalaatal am na ci ku waaw ndax man su may wax damay waxal ñëpp taal ndax bu ngi seer na café vingt cinq léegi cinquante francs walaati bi <laughs> deux cent vingt cinq léegi mu ngi ci quatre cent ah. ceeb sa kilo ceeb léegi mu ngi ci cinq cent kon daal dëkk bee nga toj dëkk bi dafa metti mhm. te nee naa itam nan dawal yërmande daal ndax partout dans le monde la lépp seere mais fii daf cee rawat mhm. essence sax léegi dafa yokk ah. taal këriñ dafa yokk mhm. gaz yokk du dund rek a seer ndox seer courant cher te courant affaire bi état mu ci kon waroon na courant dawalul taxi dawul dara kon waroon nañu wàññi courant bi wàññi ndox mi nañ ko wax tàddee bala nañ ko wax te ñëpp dégg ko rek moom moo am. Mhm. mais nañu wàññi courant bi cher na location bi seer na. Mhm. lekk gi seer na naan gi seer na ko war a bàyyi xel daal. Mhm. a dawal yërmande daal. nañ dawal yërmande mais dëkk bi daal mhm. ba dëgg fa neex yàlla nga naan ñi bu ñu talee ñiy tal di def lu ñaaw mhm. ñi moo tax agresseurs yi duñ fi taal nga am na ñoo xamante ne ndeysaan ay innocent la ñu doon mhm. mais li leen siy dugal mooy am sa war koo jox dépasse war koo jox dalay dugal ci yenn problème yi ndax ñu nekk ci prison bi ak ñi nga xamante ci mbedd mi taal ñu bañ soo leen laajee da moo leen dugal ci banditisme situation oblige ci dugal ah, liggéey amul dëkk bi metti na. Mhm. dëkk bi itam doy na waar. Mhm. tey itam Macky Sall na dugg ci prison yi. Mhm. yóbbu fa ay sarax te na grâce yu baree bari. ndax prison yi am na yu fa xamante ne dina fa xew te yàgg. war nañu bàyyi loolu xel. di bàyyi nit ñi xel wallaahi wal Quraan. moom nga di bàyyi xel bu baax a baax. ndax war bi di leen di fàtte ci population bi tam dugg bu seer bi mhm. ndax laxasu gerte caaf léegi cent franc ah, ah. tey bu dee sa mbokk a ngi nga war ko jox mu lekk war ko jox mu naan yi tey métti taal mhm. dañ leen di gëstu ndax seen lekk yi nga xel bu baax a baax macha allah amati na solo wax nga ko waaye fi ne ñu dëgmal tabaski fi ne ripaas moom saako borom jar junneeg juróom dem ba toll ci ñaari junneeg juróom benn téeméer maa xam ne junni lañ ci yokk tax na ak Mali gi nga xamante ni fi mu ne tëj nañ seeni frontière xar na dugg ci réew ko gisee mu mu doon jar deux cent léegi ñu nga jaay téeméer saako woon juróomi téeméer mu jóge fa jar junni kon xam nga ne nit ñi kon xar sa bu tawat ah xar sa bu taw taala yombal lépp yàlla taxaw ñu jàppale ñu mais daal dëkk bi metti na daal metti na torop torop maa ngi ñaanal ñëpp yàlla yombalal leen ñu am xaru tabaski di ñaanal yàlla ñëpp yàlla nañ tey ci boobu yàlla yombal dépassé. Mm-hmm. yàlla doolu ñu sutura defal ñu si Sénégal di jàmm def ko àdduna wërngal képp taal loolu ñaan. amiin ko yàlla def te yal na yàlla nangu dégg sa kàddu gi fi ñëw dégg yàlla mu jaare fa ak euh, malaaka amin ba nangu ko. ndax fi mu ne wax dëgg yàlla surtout sëñ Babacar moom bu toogee ba wax rek wax dëgg yàlla waxam war naa am fu mu yegg mais tey jii Mariama naka nga dundee ak euh, internet yi nga xam ñi ngi nga xam ne saa su ne ñi ngi déggee soxna Mariama ci wàllu li seet yi ci wàllu ñaan yi ci wàllu sarax yi ngi leen di defal ak yooyu fi mu toll nii naka naka naka naka la seen relation yi demee ci jamono bi ñu toll dañuy sant yàlla rek ndax waa dëkk yooyu ñu bari dañu leen def ñaxu taala mhm. nga la buñ la yónnee seen xaalis wala nga wax ak ñoom ci ñeet mhm. ñoom dañuy yónnee seen xaalis buñ la yónnee ba pare nañ lay dégg ngay saakonteeg ñoom ndax loolu mooy dalal seen xel danga mhm. leen di ñaanal nga bañ fàtte ndax ñoom tam ci population ci société bi lañu bokk taal ndax suñu nekkee fekk jaaxle seen xel day nekk ci soxna Mariama moo toog ci rukkam mu bëgg mu ñaanal ko pour mu gis kon man samay client li may def ak ñoom damay dalal seeni xel ñu may dégg saa yu ñu ma bëggee jot ma jox leen heure fixe boo xam ne bu ñu ma woowee dañ ma jox ma saakonte ñoom xam lan mooy seen problème ma jéem ci wut mhm. sama liggéey à chaque fois loolu laay bëgg liggéey moo tax dama naan sëriñ si nañu bàyyi xel lu baree bari mooy ci tool bi ci ñëw yónnee la xaalisam. Mhm. soxla la ndax dafa ko ay jéego. ba soxlaan yëpp boo ko mën a faj nañ ko mën nga def ko ci loo mënul nag nga boole ko keneen ndax lu ren ko ko ren a ngi ci suuf moo tax man su ma gisee ñuy baat ku naan maa mën ne maa mën ne te suñ leen xaalis ba pare ñu yóbbu nit ñi vaar taal waa bi daa xew ci sëriñ si nekk fi maa mën seet maa mën maa mën seet maa mën ñaan pour ver nga def résultat moom mm. ci internet naan maa mën li maa laa fëgg sa dënn mm. dangay bàyyi ba dem ci arène ba mën a bàq dem ci arène ba sëgg bëri mm-hmm. am ndam moo gën mu nga toog naan maa mën seet maa fi dàq seet fi kenn dàq fi kenn ndax lu nit mën nit mën na lu ko raw ndax lu ren kóot a nga ren lu mu kóot kóot ren nga ci taatam mm-hmm. loolu nañu liggéey ndax lu nit di xeebee nit moom moo Mm. waaw waaye Sénégal yeew nañ yeew boo xam ne koo nax ren doo ko nax déwén nañu liggéey ñu prouvé nañu toogaat si suñu ruq yee salaat laaj booy bàkk bu la mayoon benn pouvoir da koy dindi mm-hmm. da koy dindi yi may jëflanteeg ñoom taala boo ibbiwoon ñu bi fii insha allah mm-hmm. ci leen waaw dawuma ci leen seetul ñoom jàmm seetul ñoom leen ko ñu sekk jàmm dem bay am kóolare di tuddante ay doom teranga bu ne dox seen sama diggante ma ak ñoom. Mhm. day mel ne du client ak clientèle teranga bu ne dox na sama diggante man ak ñoom. waa bitim réew yi moo tax maa ngi leen di nuyu. Mhm. ñi nga xamante ne maa ngi liggéeyu ñoom pendant dix ans pendant cinq ans ba tey maa ngi liggéeyandoo ak ñoom. mu doon lu am solo wax dëgg yàlla ndax colère euh, moom defe naa ni du ma ni du ma ni yaaku moom waaye xam naa ni fii la fekk baax ndeysaan ndax euh, buñ ne soxna Mariama si mu Serigne si wax dëgg yàlla euh, ñi la xam ca jamono laata Safir ba Safir gannaaw Safir dëgg yàlla ñëpp itam macha allah daal la ñuy wax saa su ne looloo tax sax may di woon question bi ne la mbokk yi nga xamante ne mooy intondé ak soppeek am di jàmm noonu dina ñëw mais Mariama su ma gisee itam fi mu toll wax dëgg yàlla tey jii lan mooy tey cri de cœur bi soxna Mariama si war a génne li neex li neexu ci xolu Mariama ci biir réew mi ak ci nit ñi parce que nit ñi fi ne Mariama dafa mel ni demeetuñu sago te nit bu demee jamono buñ demee ba nit ñi demeetuñu sago mhm. kon ay bàyyi ma da leen di gën gën demee. dëgg la loolu moom dëgg la mais taal li ma gën a métti ci réew mi actuellement. Mhm. divorce yi dafa bari. ndeysaan. te divorce yi dañuy sóor xale yi tout le temps mhm. daf ma sokkee daf ma métti. ndeysaan ndaxte taal ndeysaan damay ko seeg ñoom man tam bu ma gisee xale. Hmm. dama bàyyi xel instant ngay dox gis xale bu la la ngaaw yaay may ma ma jënd ndox wala may ma woon def moom li muy wax mooy sam papa sama yaay saytuñu il faut que xale bi day nekk l'enfant de rêve hmm. kon nañuy bàyyi xale yi xel ñu bari seen jàng traumatisé na hmm. ñu bari jaaree nañ fa taal mu ngi fecc corniche bi cootu géej ñu ko lan moo la naqari ba tax ngay def banditisme wala ak sama papa dañoo tàkkali ko te dama leen wax ñu dellu bañ looloo tax ma dem doon bandi kon nañ leen di sóor xale yi lu problème boo ñu góor ñi jàpp jàppale jigéen ñi ndax jigéen ñi naan am amuñu doole mm-hmm. ndax jigéen boo ko fasee ci kër lay dellu dëgg la mais deel sóor say ñu njaboot mais mm-hmm. sóor sa doom man actuellement actuellement li ma métti mooy divorce yi tribunal saa yu xëy 3000 personnes 3000 de divorce day am foofu ma loolu moo a naqari daal tey bu a doon dox dox ñax dama naan divorce yu bari man moo ma metti taal ci réew mi ak réew mu toll. Mhm. tey ji tay tey li ma metti mooy loolu. waaw. na waar mhm. divorce yi mais est-ce tamit fi ne Mariama na fi mu toll nii. jigéen ñi ñoo sëyatul wala góor ñi ñoo. amatul man li may dégg ci xeetu dëddaleel ma diw ak diw. Mhm. boo ko waxee mu ja neex ma ak bu ma sañoon sama mbokk bu ma neex bu ma sañoon ay takk ka ma gënal foofu la divorce yu bare Sénégal yi nañ bàyyi dem ci sëriñ bi liggéey pour mu tas sëyam kuy sëy nañ ko bàyyi jëkkëram ndax nit ki bu xoolee jabaram ba bëgg ko nañ ko bàyyi moom na mu fa ñoom ñaar la dëgg ñaan ñoom ñaar mais nga tàkkale nit ak nit léegi seen doom yi nekk fi di tumuraan nga takk beneen jigéen indi ko mhm. ñu jël doom yi beneen yaay yor leen mhm. doom boo ko jurul doo ko yërëm kooku day jël doom yi di leen di torturer di leen teg lu metti metti metti metti metti metti jigéen ñu bari dañ leen di not yóbbu leen tribunal ba bari nangu seen i doom jox ko seen papa te mhm. papa yi xamuñu lu xew ci kër yi loolu man moo ma metti taal ndax damay gis xale yoo xam ne ñu bari di may ñaan dara mbala ñu ñëw di may wax seen soxla di jooy daf ma metti daf metti ndax yaay laa jigéen laa mm-hmm. yor sama borom kër te bu ma sañoon ñëpp toog ak seen jëkkër ndax nit da nga koy fekk ki mu gën a bëgg mm-hmm. nga dem ci sëñ tàqale ko moom nga foog ne di am jàmm doo a am loolu métti na ma trop nag. dëgg dëgg ma trop. day na waar yal na yàlla sa borom indi ci saafara ci pexe fi mu toll wax dëgg yàlla ndax euh, tey jii sëriñ si fi mu ne yàlla na fi mu ne yanu na maanaa wala charia nangu na ab sëriñ buy buy yàq diggante ndax dégg naa tas diggante fi ne moom a na lu suñu borom wax. Mm-hmm. nit ñëw fii ba ci yoon si yàlla Muhammad fay ma deux def dama jël xaalis ba téye def loo xamante ne da nga koo ne demal nga togg ko nga def ko ci diggu kër gi ba mu ko defee ñoom ñëpp ko juboo ndeysaan ngeen nekk ci jàmm nekk ci salaam ndaw si ñëw fi ne ma li ma la ma ne ko la ma waxoon mu ne dama la waxoon nga la julliwaat ji waaye dafa mel ni su ma gisee sama xol ay sedd buy dama ko bëgg bëgg dama ko a nekk la ndax man jàmm ko jàmm rek lay laaj man bugguma nit kuy teg nit fitna mm-hmm. fitna baaxul mm-hmm. fitna day yàq réew yal nañ yàlla musal ci fitna ak ñiy dëddaleen nit ak nit yàq say jàmm yal nañ ci allahu subhanahu wa taala musal dañu koy def nañ ko bàyyi taala lu mu yàgg yàgg mm-hmm. juróom-ñaari mètre percal mu def nge te ku xalaat ne boo yëpp ak sa bàmmeel. sa dem mm. na de. te ku dee su tëddoon tey ci biir bàmmeel billaahi li ma liggéey rek la ma yàlla la ma yàlla di fay sama biir bàmmeel. dañuy mm. mm. rafetlu xol yi. dañuy yéeneente jàmm dañuy jàppalante te sëriñ si itam nañ bàyyi dëddale yàlla defal ko ñaaw bi. dañ koy bàyyi ñoo koy def. jamono bi ñu toll nit ñi dem koo xam ne day waxtaan di leen indi la solution ci seen ci seen xalaat parce que rawatina suñu mbokk internet yi xam daan bi seen doole ñu gisuñu ku ñu waxal gisuñu ku ñu waxtaanal te ñu am ay soxla am ay xalaat am bëgg di waxtaanal nit te bu ñu amul ku ñu waxtaanal dama naan feebar bi gën a garaaw mooy feebaru stress foofu lay dal di jógee donc ñoom itam ban message nga leen nga leen nga leen ni lancé macha allah. waaw dañu leen di ndaxte yàlla problème bu ñu rek indi solution ndax yàlla solution la ñu ko def door indi problème. Mm-hmm. kon nit ki su amee problème. da ngay xool taal léegi da nit ñi kenn wóolootul kenn. ndax tey damay wóolu Cheikh Talla ñëw di waxtaan ak yow si mm-hmm. ma nit ñi ko mu wutal ko solution. Mm-hmm. ndax taal fi ñu bari dof na leen dofloo. dëgg ndax da ngay wóolu nit ñëw di waxtaan ak moom mu mhm. da ngay sa problème doo am doo ko diis nga xam ne seen i moo nekkoon seen i xarit dëgg. daa mhm. am na ñoo xam ne seen i waajur moo nekkoon seen i problème seen i i xarit ñuy waxtaan ak seen i waajur i waajur dañoo wéet. Mhm. ñu bokk nañu jàppante ni ñu suudante. dégg nga ñu jàppante bëggante yéenante jàmm mais tey da ngay bëgg nit baa nga waxtaan ak nit foog soo ko defee ñu bari dofloo na leen taala Mm. te li nga dofloo nit mooy nit day am problème bi ñëw waxtaan koog yow nga dem di koy toogee mm. bala nga dem di yàq nit ki bala nga dem di naan nit ki diw nee na ma diw nee na ma nañ leen bàyyi teesante ak waxante ku nekk na nga wut lu may xaalis wut lu mm-hmm. lay avancé wut lu lay dund loo te jaamu sa borom mm-hmm. ndax benn yàlla rek moo fi am am mm. mu allah subhanahu wa taala dañ leen jaamu yàlla ñu gën a ragal yàlla gën a fonk yàlla mm. ndax stress dina bari taala mm, dina dund stress yi tam mm. bu ko nangoo dund ndax li tax doo ko dund boo nar a stressé sa jëlal demal nga jàpp ba sell ngay def say salli ala muhammad mbala ngay def say istifaar di am ay yiw yàlla di lay gën bindal ay point foofu mm-hmm. nga toog di stressé wu ndax loolu boo ko yàlla day raxas sa xol ba naqar bu la amoon mm-hmm. day koy raxas day mel ne comme cin bu ñuul di jël bomb di koy bomb di xoos di xoos day dem ba weex mhm. boo def sali ala Muhammad day dem ba say bàkkaar day fay yàlla da koy indi mu doon jàmm mhm. ko moo tax nañ leen def ay sali ala Muhammad allahumma salli ala sayyidina Muhammad bu dee mënoo bu dee mënoo mhm. def boo ko dee def yàlla da lay raxasal say bàkkaar stress bi yàlla da koy dindi da koy raxas carrément day mel ne comme bopp bu lay nekk nga dem naani sa garab mu ak lay nekk. bu dee da nga am stress booy def say salli ala Muhammad di def say istifaar. di mm-hmm. la naqari woon yàlla da la ciy trouver da lay jàppale daal nit ci Seydina Mohamed. Mm-hmm. dañuy julli borom bi subhaanahu wa mm-hmm. day tax stress daal di dañ ci yow carrément carrément. macha allah mooy li ma wax léegi nit ñi dañoo soxla ku ñu waxtaanal. dañoo soxla ku leen dolli xalaat parce que dañoo dem ba dañoo stressé wu stress nag mooy da xool loo xam ne da nga koy bëgg a saafara te doo ko mën a saafara wala nga xool loo bëgg def te mënoo ko def. donc loolu def loo bëgg def te mënoo xool loo bëgg def te mënoo ko. nekk maanaam borom kër ñëw famille doon bokk ci famille. Mm-hmm. ñuy def duñ la yëgal ñuy def duñ la tàggu te kenn du la xaar loolu gën a métti moo tax war a faj te fajoo dafa métti mm-hmm. war a faj te mm-hmm. yàlla dafa bind tayee malewul daal dañuy am nañu jàppale ñu amul ndax ñu bari dañoo stressé wu ndax da ngay bëgg a faj doo mën a faj da ngay bëgg a def doo mën a def te dafay métti dafay métti moo tax wax ñu ndokk internet ñi nga xam dañuy teewal ñu bari ak ñu leen siyaar di leen di màggal te di leen di tàggal daal waaye lu ci waay am loo war a wax mbala waaye buñ ci am loo xam ne war nañu koo laaj buñ amee xalaat nañu ko laaj ñu tontu leen tàggal la yéen ñi nga xam ne yéen a ngi nekk ci live bi nga xamante ni live la grande voyante euh, soxna Mariama Sy bu Serigne Babacar euh, kër koo xamante tam am nga laaj boo xam ne bëgg nga ko laaj incha allah boo boo boo ko boo ko yónnee léegi ci message ci commentaire yi des na la ko ko laajal moom it mu indi la ci tontu indi la ci xalam yi nga xam ne moom la ci xam ak li ci diine wax ak xam-xam bi nga xam ne moom la ko suñu borom jagleel te mu koy jagleel ak askanu Sénégal toogul fii nag ci tiktok bi di def laay pour buzz déedéet ku xamul soxna Mariama Si mu sëñ demal nga laajte ji ko wala nga gëstu ji ay biram xam ni kon surtout sëriñ Babacar bi kenn du moom macha allah rabbi su ko defee rek ba tey rek di amaan mbégte bu baax a baax ci topp gi nga xam ne yéen a ngi ci yéen a ngi ñu ci topp ci live nga xam ne mooy nga ñoo ñoo ñooy toog taamu chaîne bi nga xam ne te mooy Salam Vision ñi ñi amaan mbégte bu baax a baax ci ñoom ndax nee naa bañ jàppee ba tey bàyyi wuñu li tax ba Salam Vision doo fa fekk benn vidéo boo xam ne naka su dul noonu la boo xam ne dana fa nekk ndax tur bi la ñuy jéem ak li nga xamante ni mooy mooy mooy mooy mooy mooy liggéey bi soxna Mariama fi ma bëgg ñu duggaat ko benn wala ñaari question rek doo a yëkkati suñu jotaay bi ndax ñëpp bëggoon na ma ko yëkkati waaye euh, internet yi nekk ci laaj bi moo tax bëgg bëggatuma ko yëkkati ndax nee naa suñu xel day day dem ci ñoom dañ leen di bàyyi xel bu baax a baax a baax ndax nee naa euh, kii wax moom kii wax moom ki koy déglu rek moom moom mooy mbokkam kon bu ñu demee ba def ba def live bii nii toog kon ñoom ñi ñuy seetaan wala jënd seen connexion di ñuy seetaan ñoom ñooy suñuy mbokk ñooy suñu am jàmm moo tax bëggatuma arrêté live bi ndax ku ci mel ni fi mu kenn sëriñ bi mi ngi fi ku ci mel ni Ndeya ku ci mel ni Nguer ñoom ñëpp avocat yi ñoom ñëpp ñu ngi nii ci ci ci live bi su ko defee rek képp koo xam ne am nga question boo bëgg a dugal rek incha allah rabbi boo ko bindee ci commentaire bi dinañ la ko laajal mm, soxna Mariama beneen laaj bi ma lay laajaat mooy laaj boo xam ne saa su ne ma laaj la ko nga ne ma bàyyi li nga may laaj lu tax soxna Mariama ëpp ay fans yu góor ka yu jigéen. daal damay sant yàlla ndax bi ma doonee ndaw ba tey. Mhm. góor ñi ñooy samay soppe. Mhm. ñoom ñoo ma gën a bëgg. ma bëggante ak ñoom. ndax mhm. yàlla xëy na daf mooñaale ci cëru boobu benn part. ndax à chaque fois wax dëgg fa neex yàlla itam ma nekk ku ma comprendre ci góor ñi nga xam ne ndax nee naa ci fiir duggoon mbala jalousie dugg dina métti. walaay ndeysaan ndax fi may taal góor ñi ma gën a jox bopp. ñoom mm-hmm. laa ëpp li may jëflante te duñ la sonal macha allah. Mm-hmm. kon góor ñi dama leen ñaan duñ la sonal maanaam boo déggee duñ la sonal seen coow bariwul seen wax bariwul. Mm-hmm. te nga defal leen li nga xamante ne dañ koy saxee si suñu liggéey mooy ñoom buñ la fayee itam dañ lay bàyyi. pour nga mën leen liggéeyal mhm. pour nga mën a ànd ak ñoom tam dañ lay encouragé mhm. ndax taal ñun bu ñu amoon ginnaaw bu ñu amoon ay góor ñuy jàppale kon xaaj nañu mhm. ndax liggéey bii ñuy liggéey naa ko xamul dara wala ku amul fit doon jigéen liggéey ci pendant dix ans di lay gunge di lay poussé ngay encouragé góor ñi la taala góor ñi suñu mbokk sëriñ bi nga xam ne góor la doon wallaahi barki yoon ci yàlla Mohamed dañ may ñaanal dañ may bëggee dañ may jàppale mm-hmm. kon nag maa yey ànd ak góor ñi ndax yàlla may sama mm-hmm. mm-hmm. am nga wéeru waaye am nga ginnaaw macha allah loolu leer na looloo tax macha allah mu doon lu am solo soxna Awa Faye nee li nga wax dëgg la boo dëgg la bu kenn dul dindi moom dana vérité absolue eh, soxnaa wa yow mu ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax moom it mi ngi ci mi ngi ci live bi macha eh, léegi fi ne góor ñi fi mu ne soxna Mariama secret de femme mm-hmm. damaa gis jigéen ñi soo sa soppe yu jigéen yi boo ñi ma ci xam ñi ma ci ñi ma ci gis wala ñi ma ci dégg boobu ñëpp daal xam naa ne secret de femme moo tax ñu ñoom moom moom daal secret de femme laa bëggoon nga tasal ñu ko faram ñu ci tuuti rek ndax ndax xëy na ñu xam ko ndax nag dootuñu ay célibataire duñu ay te dañoo bokk dañoo ne ci néegu allah taal nga naan jigéen dafa war a ay rukk Mhm. bari ay ruqaat mhm. ndax nee naa jigéen daa war a bari fenn daa war a xajam mhm. ndax secret de femme man dama ciy yëngu kaala te dama koy joxe dama ciy jaay te itam secret de femme yoo xamante ni dafa ànd ak discret premièrement ndax jigéen nee naa dafa war a bari ay secret ndax sa jëkkër sa góor ni koy téye yow yaa war a xam ni koy këri ay pale ñàpp am bi am na fi tàngamante am na fi glace am na fi kaala façon fen bu ne am na ko am na fi <laughs> jigéen ñi à chaque fois dañ koy soxla dañ koy wut si fii mais secret de femme plus Hmm. loo xamante ni du la gaañ. du hmm. la def infection. Hmm. du la rey. te du la yóbbu fenn sa jëkkër loolu loo xamante ni day neexal sa say. loolu loo xam ne day jubóole ak yow ak sa diggante sa borom daf taala loolu aayu. loolu aayu ndax nga ñaan lu bala nga wut benn secret dafa am xam ne day téye sa borom daf fi bindee. jàmm na salaam ndax xale jigéen ñi dañuy itam bale te ñoo ko fi ëppoon nit yi. kon jigéen ñi nga la dañuy bu secret de femme ku nekk xam fooy téye sa mhm. ndax boo taara dox na de. ku leen xam nañ ko noo leen xam nañ ko. wallay ne sax loolu jigéen ñi dañuy téye seen jëkkër mhm. ay secret yu dul jeex yu dul jeex yu dul jeex nee naa bu ko nopp. Mhm. sa jëkkër. bu ko nopp déedéet. moo koy def bu ko sëritu bu bari. ndax bu gàllaaj bu tojee rek day tax mu bañ la. taala gis nga gàllaaj fi muy jàppee bis bu tojee wax ji da bañ te li lay bañee yow yaa koy dama na nga a jigéen ñi. dañu wut secret de femme dañu wut seeni clé. code yi dafa am gis na ni ngay coté sa téléphone. code yi dafa am code boo xamante ne yow yaa koy ubbi yaa koy tëj ba sa jëkkër toog sa wet. day day day daal suñuy jëkkër tax ñu topp ñu. ndax dëgg dañoo yor suñuy clé yor suñu code yor garaaw. yor suñuy seet yu garaaw. mbay fii ak yi toog fii ak yi wàcc. fii fii ak wàcc fii ak wàcc nee na ma dañoo am ay code am ay secret téléphone bi ñu ma amee da ngay am say code. déjà day bari kër day xajam. xam nga mm-hmm. ndax itam yàlla daf da mm-hmm. mm-hmm. ci jaamu yàlla la bokk taala. ndax nee naa li góor ga bi na ngay solo romb bu kontaan. na ngay solo sa jëkkër kontaan yàlla bindal ci yow te góor ga boo solo romb ko tey yàlla da ngay bindal tuyaaba euh, déedéet bàkkaar day bindal bàkkaar mais tey toog sa watu jëkkër toppatoo ko defar ñeen ne kenn talatuñ seen hmm? xam nga lan moo tax loolu hmm. amul góor ñe téyetul seen i jabar mais nee naa taal soo demee yàlla defal la tey jii wërsëg hmm. yàlla ibbi la jàpp na jigéen ja nekk ca biir kër gi wërsëgam la yàlla ko def sa bos jox la moo tax góor ñi suñu amee dara nañu ñëw bégal seen jabar nañuy seddal seen xol ndax dinaa soo seddalee sa xolu soxna loo bëgg da nga koy am parce que taale bi sa jigéen yàlla daf ñoo defoon loo xamante ne tey booy dem di wuti mm-hmm. nga daal di sa soxna ni ko ñaanal ma taala mm-hmm. nit doo ko ndax koo gis am na lu yàlla suñu borom xeebaate sax moo baax sa jabar bu dem di wuti am mais sa jabar bu la meree ba nga góor bari ñu mm-hmm. leen ñàkkal dépasse ak ñi leen xañ ñuy wut su sëy da ngeen di déggoo da ngeen di waxtaan ndax ki bàyyi lay mbàyyi bàyyi waaw li tax moom li tax mu xelam dal yaa koy def bu xaaj sëy sëy du alal du kër bu rafet du dara nit mën na ko dugal ci benn nit mais del dalal xelam yow mi ko indi mhm. ak biir kër ga da nga ko fekk ndeyam fekk mu amoon ay xarit mhm. fekk mu am ay àndandoo tey nga génnee ko ci boobu yëpp mhm. ñëw mu teg ko sa biir kër kon góor ñi dañuy dalal seeni xel soxna booy génn fii taal damal toj dëkk bi yaa xam loo yàlla rek xam wallaahu a'lam mais wax sa jabar maa ngi dégg loolu day tax jigéen am courage day tax xelam dal moo tax góor ñi dañuy yërëm seeni jabar te dañuy am communication rawatina loolu day am solo ci macha allah waaw li secret de femme nga bokk. ndeysaan <laughs> tubarkàlla <laughs> nee naa secret de femme daal kon fi mu toll ku yàqu nag na ñëw na ñëw na ñëw daal fi mu ne ut si wax dëgg yàlla euh, soxna Ngone mu suñ fàllu mooy ndeysaan ñu ngi lay bëggee bu baax na soxna Ngone 343. wax dëgg yàlla nee na yow ku baax nga macha allah rabbi waaye yónnee na la lu ma daanaka téeméeri kër ak juróom-ñeent fukk wax dëgg yàlla macha allah moom it kenn du moom ñu ngi lay diggee yow bu baax soxna Ngone ak soxna Awa Faye macha allah gars yi daal ñu ngi ci biir naa ni buñ leen toppee itam fi mu ne duñ fi jóg ndax xam naa bëgg ñu waxtaanee ko lépp xañul ci benn jotaay waaye mënta yàlla ñu mosal leen te xamal leen ni leen fi mu ne mën nañ koy ko daanaka bu dul chaque jour itam dinañ fexe ñaari fan yu ne ñu dëkkal leen benn live waxtaane tolluwaaye jamono ñu yónnee ñu seen i comme commentaire ci ci ci li nga xam ne mooy live bi wala ñu yónnee ñu commentaire ci page bi wala ñu yónnee ko tam ci commentaire chaîne YouTube bu Salam Vision incha allah bi lépp danañ ko fa danañ leen ko mën a eh, indil ay leeral yu mucc ayib yoo xamante ni dana xam fu ñu fu ñu war a mën a tegaat seen tànk ndax ni ma ko waxee rek jamono jaxasoo na xel yi tëju na xool yi daanaka gis nañu donc lii xew lépp kenn mënu koo xam Mariama dernière question ma bëgg a laal da laal benn point bu bu bu bu bu am solo. muy li nga wax léegi euh, nekk ak sa borom kër muy génn dem di uti ji tàggu la tàllal lay loxo la ñaanal ma maa ngi dem tey góor ñu ko bañ a def rëy moo tax defuñu ko walla lan moo tax mënuñu ko def te man dam man man gis naa ñu koy def. tàll. Mm-hmm. borom kër soo génnee sa kër. Mm-hmm. dem di ji. Mm-hmm. tàll la sa jabar nag kër bu marché ñaanal ma day tax. xolam bu seddee ba nga woon ko ginnaaw lu wuti yàlla suñu borom dana ko yombal njaboot bi ngay bàyyi xale mhm. yi nga mhm. mhm. que bi xale leen jox ñuy mos di xam ne yëg ni am nañ papa di sentir papa di xam ne papa am nañ papa dëggantaan dëggantaan xam papa dafa am mooy papa ji nga xam ne à chaque fois muy xalaat njabootam à chaque fois taala man mënuma génn lekk benn bonbon te xalaatuma sama njaboot xam nga lu waral loolu taal. Mm-hmm. man sama borom kër noonu la ma téye. tey su génnee bala muy lijjanti leen. Mm-hmm. billaahi wallaahi wa taala taala day fàttali sax jox na ma dépasse weer saa yu xëyee suy dem dina ma tegal sama dépasse xam nga luy waral loolu. Mm-hmm. taala neen moom buggul ay njabootam jaaxle. ndax moom xam ne ne kër gii kër gii. nekk mmh. taalibi Cheikh pur la mmh. te xam ne gan yi dañuy ñëw te nit ñi dañuy ñëw seet suñu taal kon lekk war ta manqué fii naan war a fee manqué fu waay jógee rek war nañu jox nga lekk naan mmh. war nañu mën a faj sa soxla moo xam soxla boo mën indi taal ak sa problème nu mu mën di toll bu ma ci mënul dara rek jox ko sëñ Moustapha Dieye mu jàppale ma ci moom nag yombal na sama liggéey taal moo tax mënu ma waxtaan bu ma ko cité du lenn lenn lenn mais daf ma jàppale sama liggéey bi daf ma jàppale daf ma dooleel buñ ne buñ ne ginnaaw ginnaaw ginnaaw taal buñ ne bukki ñu mm. mbaar mais moo ma jàppale moom moo ma dooleel mm-hmm. ba ma am fit su ma amee fit mm-hmm. toog ci internet di wax rek ba déwén mm-hmm. moom moo tax ndax moo nekk sama ginnaaw moo may jàppale sama liggéey moo may dooleel moo ma yokk fit moo ma yokk courage ndax sama liggéey bi taal góor ñëw tey ma tëjoog moom sama cabinet privé cabinet fibre de voyance. Mm-hmm. di waxtaan ak moom pendant une heure de temps pendant deux heures de temps te doon soxla. Mm-hmm. kon moom a ma jàppale. moom moo may coaché. Mm-hmm. moom mooy sama bras droit. dama ko ñaan yal na yàlla yokk xam-xam. yàlla dëgëral ko. yàlla yokk ko sooy dem. borom kër sooy génn sa kër. ana sa jabar ñaanal gunge la. nga dem deux jours nga ñëw xool yàlla da jox lépp mu ñëw tegi sa kanam te doo nam lenn. booy ñëw gàddu sa benn sachet moo xam sa bonbon moo xam sa tànga boo ñëwee seen bi daal di joxe seen yaay mu jox xale wallaahi ku ko saxoo tànga doo manqué dara te doo namati leen moo mm-hmm. tax na ñoo xam ne bëgg nañ mais amuñu li tax booy ñi di gaaw a mel mm-hmm. am na ñoom dañuy wut suba ba ngoon duñu am te fekk ni communication lañ am mm-hmm. ak diisoo ak seen jabar ndax tàlla nee la ngay wëri ca jigéen di ca ba ka bàyyi ca ga boo ko waroon ci moom am ko ci mais loolu xoolul ci nit doo ko am dañ leen di bàyyi jigéen ñi xel tàlla jigéen ñi ñoo sëy ba dee ndax nee naa pour sa ndey di sëy sa baay di sa ndey di sëy kaas. Mhm. war nga mën a sëy ba dee. am na xam ne dañoo amul ñu leen jàppale. Mhm. am na ñoo xam dañoo bëgg sëy mais yoon seen jëkkër. Mhm. dëggantaan mais nañ leen di bàyyi jigéen ñi xel ndax jigéen ñi bëgg nañu sëy mais nañ leen di jàppale. mais tey jigéen ñi buy sëy gumbaal taxal lu ok gumbaal tax luwal. ndax boo déggee ma ne bumba lu taal maanaam sooy sëy defal sa jëkkër xarit nga gàtt tànk gàtt làmmiñ mm-hmm. waaw loolu day tax sa sëy dëgër loolu day tax yàlla suñu borom jàppale la bu baax a baax nga sëy yàlla la amul bànneex mm-hmm. mm. macha mu doon lu am solo soxna Mariama wax dëgg yàlla waxtaan wi neex na am na solo lool waaye nee naa leen bu leen tàyyi bu leen zappe bu leen def dara nee leen ñaari fan yu ne dinañ fexe ba may leen waaw ñaari fan yu ne dinañ leen may ci ñu ñu dañ leen di fexee fexe sax xel leen ñaari fan yu ne ñu may leen benn live waxtaane tolluwaayu jamono incha allahu rabbi nañ ko yónnee ci chaîne YouTube bu Salam Vision incha allah boo duggee ci YouTube bi tàppe Salam Vision di ngeen fa fekk ay vidéo yu soxna Mariama si d'ailleurs live bii ñu def ma nga fa def incha allahu rabbi voyage waaw incha allahu rabbi léegi rek yu bees yaa ñëw yu bees yaa ñëw feeñ yu bees yi benn loo xamante ne dina leen wallaay doole jaa ngi fi hmm. kàttan gaa ngi fi nañu ñaanal yàlla yokk ñu doole rek wala ñu koy ñaanal ñi nga xam dañuy teewlu incha allah di ñaan gudd fan ak wér ak sutura hmm. waaw ndax saa su ne rek dinañ def live doon na hmm. jot amul mais dañuy partagé ak ñoom suñu li nga xam ne moom la ñuy dund mu néew mu bëri xew yi nga xamante ne muy am ci biir kër ndax kër yaa ngi toj waaw noonu nee bi ci gën a neex mooy lii xew ci biir kër yi. waaw ci ci ci tolluwaayu jamono kër a am ah, yoo xam xew ci biir kër yi. kenn oh. mënu mm-hmm. mm-hmm. jamono ji dëkk ji dafa toj. sa problème bu génnee dem toogay la. toogay la léegi nag nañ mm-hmm. ndax saa su ne dina xew ci Salam Vision chaque deux jours. incha allah incha allah rabbi ñu leen jox rendez-vous. ndegam neex na yàlla. Euh, ci Salam Vision 15 heures. ba 17 heures incha allah rabbi ñu lay sant itam. daala di lay gërëm di lay ñaanal jàmm di sant suñu mbokk xamante ni ñu ngi ñu ngi di kontaane ñëpp mm-hmm. naan nañu kal léegi incha allah quinze heures ci kàttanu suñu borom jaajëfal la bu baax a baax soxna Mariama Si mu sëñ Babacar waaye jaajëfalaat bu baax a baax mbooleem euh, internet yi nga xamante ne ñu ngi ci réseaux sociaux yi moo xam ci YouTube bi Facebook bi Twitter LinkedIn Instagram TikTok plus particulièrement ngoone mii man xaritoo naa ak moom ngoone 343 man xaritoo naa ak yow yow sama xarit nga ngoone <laughs> sama xarit nga soxna Mariama Sy ñu ngi lay ndax ba nga jàppee ba léegi bàyyiwu la yow it ak soxna Amina macha allah ñëpp ñoom ñëpp day saan ngi ci biir ngoone mii maa moom ñoo bokk seen ndax waa kër sëñ lañ ah. gis nga ko ñun taalibe taalibe Fallou Galassi ñoo nekk fii tey ci biir kër taalibe bi sëtub sëñ Babacar bi waaw li fi waxtaane tolluwaaye jamono ak yi mi laaj rek dig daje lay dal di doon incha allahu rabi taala képp koo xam ne tam bëgg nga ak ki nga xamante ni mooy soxna Mariama Sy mu sëñ Babacar nga ko woo ci 77 060 43 10 77 060 43 10 mooy numéro téléphone boo xam ne mën nga ko ci jotee incha allah rabbi boo ko ci jotee lépp loo xamante ni teewoo ko wala nga bëgg ko wala nga bëgg koo leer wala nga bëgg koo waxtaanee rek incha allah sama borom dana leen ci defal tawfeex ci kattanam di daje incha allah rabbi altine ci suñu beneen jotaay ak seen jotaayu xam-xam bi macha allah jërë ngeen jëf wasalaam. Bienvenue sur Salam Vision.